God. nga xam ne moom la ñuy wax màggal màggalug Daaru Xudus ci ca ca li màggalug murid yëpp te képp ku jàngat dara ci taarix bi rek danga xam ne murid yëpp ko bokk waaye fas yéene ñëw lenn ci ñëwug sëriñ bi Tuubaa ak lenn ci li nga xam ne moo feddaliku ci màggal gi ci ndigal loo xam ne si Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma joxoon na ko defoon na ko ci discours am boo xam ne mu ngi ci doon feddali màggal gi fas yéen ci rek tofal tomb boo xam ne lenn ci tasawuf lay lay lañ ci waxtaane ndax ñu ngi ci bëgg a jàngale lan mooy ak murit ca murit mënoo ko wax ca tuddoo tasawuf ndax tasawuf mooy bi nga xam ne moo jur murit ndax al iraada martabu martabatu min maratabi tasawuf man maanaam martaba la ci martabay tasawuf ak murit kon bis bi bis bu tedd la boo xam ne nañu xam ne mooy ñibbi sëriñ bi Touba loolu mooy sabab bi muy lu ñëpp xam xam ngeen sëriñ bi bi mu dénkee Cheikh Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy doo euh, doomam ji ko njëkk a wutu lam ko dénkoon mooy bu bis ba Touba la xaw mu ci ndigal loolu saxal ko ni ko Cheikh Mouhamadou Cheikhul Khadim diglee jëfe ndigal loolu ci la yabal ku ñuy wax sëñ Moustapha Lone ci maam Thierno ci Daaru Muxti yëgal ko ko wax nañ ne maam Thierno bi mu ñëwee yëgal ko ko bi mu ko yëgal bëkk néeg bi daa fekk maam Thierno fatu mu ne ko Cheikh Moustapha damaa yebal te mënumaa ñàkk ay ci moom mu wax bëkk néeg bi insisté si Moustapha Diop ne ko maa ñàkk egg ci moom mu tëb sàkkeen bi fekk ko maam Thierno nekk ci ay awraatam mu egge ko xibaar bi xamal ko ne ko sëñ bi daaw dellu ci boroomam ni ko ko seen sooy waxee wax nañu maam Thierno dane dënn diggante boo xam ne boo fi doon toog Allah dana ñor ba war a sedd bëgg néeg bi daal di egge xibaar bi maam Thierno maam itam ne kon de xanaa njaari ban naa jaari maam Thierno si Moustapha ne ko nee na Touba la kon mu ne ko kon ñu leen Touba bi mu ñëwee fekk na fi ñi nga xam ne ñoo indi sëriñ bi Touba ñaar ko juróom ñaar yi moo xoon ñaar ko juróom ak ànd ak ñam àndal ñu taxaw ja ci wàccaayam wujj bi ñu koy waajal waaye li ci am solo mooy biñ koy waajal ba nga xam ne egg nañ ci waxtu julli jot su mbàkk bi sax dana leen woon peut-être que dana woon lu ngeen di def ba waxtu julli ko bàyyi dem julli bi nga xam ne fa lañ bàyyi jémmi bi dem julli bi xam ne ñoom dañoo jëmmal euh, asalaatu imaadu diin gën a taxawal keneen diine julli mooy keneen nga xam moo taxawal diine kon loolu tënk la boo xam ne rek boo gisee xusuñu ci day lu ñëpp xam ñu ñëw ci lenn loo xam ne nag discours la boo xam ne sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma moo ko defoon ubbee ko bismi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alil asim wa wa wasalaamu ala rasulil karim amma baadu fa inni uayyikum tahiyatan mubarakatan tayyibatan wa usikum bi taqwallah asim waqtifaa sunnati nabiyihil karim wa bi taawuni ala albirri wa taqwa wal xayrat watajannubu jami'il manahi wal munkarat wa bisabri ala asas ansat li tu'asu li tu'asu al ajra yawma mi'ad dina bi sante yalla ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da wax ne ma ngi leen ni nuyu bu tedd te di leen ragal yalla ak xeng sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak waqtadiku mbole mi xam dañ ko téré ak muñ ci ayu ñaan ngir ngeen mën a làq ab yoon te bis ba nga xam ne mooy bisu fay ba Cheikh Ahmad Mbacke genn fa mu wax ne wa awgada aleykumul amra bintimaahi fii ansal maal majid li tax fi ñu ansal yowmu al mubarak asahin allazi amar ko bi saytu xalifa bi taxsimihi wa ijtimaa fii maa ngi leen di feddali ndigal li nga xam ne sëriñ bi da koo joxe woon ci dajaloo ci màggal bis bii isri na mu muharram nanga ma dajalee sama mbooloo loolu sëñ Tuubaa moo ko waxoon Sëñ Mustafaa bind ko mu doon ab wasiya boo xam ne wax nañ ne maxtu mi daan takk mi mu daan takk ci la ko defoon looloo sonkoon leetar bi ak bañoon mu laatu moo tax mu di ko ci def sëñ Masamba la ko seede la woon mu waraloon fu ñu àggee ci bis bi rek Sëñ Mustafaa daan na dajale mbooloo mi ñu màggal ko ni ko sëriñ bi diglee شيخ احمد مات غين فان واخني ولا ميكن يحضر في هذا الامر باي رغبه دنيويه بل نصر منه الى كونه خير ايام الشيخ الخديم عليه اكبر رضوان الله باك الخديم نينا بس بي ماغال كو دول امون مين ميروم ادنا مو خامني موتاخ نيكاي ديف لين ادنا تاخ نيكاي ديف دور رك جيمم ديغلو شيخ الخديم لي خامني موكو ديغلي وون li anna yawma wafaatihi ila rabbihi lasi afna fii fi taatihi ndax mooy bis bi nga xam ne ci la jeexal tàkk ab liggéeyam bi nga xam ne ci la liggéeyal yàlla ba dellu ci boromam moom seexul xadim ndax xam ngeen ne nekk na ci loxoy nasaraan yi fanweeri at lu topp ak lépp luy tàqale ruux doomu aadama ak moo tax si ahmadou bak genn fan mu wax ne wa taxsimi rasulihi wal infax fi mardatihi na ngeen ko màggal ci màggal yonent bi sallallahu alayhi ak dundal ci loo xam ne rek suñ borom da koo gërëm lépp loo xam ne ngërëmal yàlla ngeen dundal ko ci moo tax Seexul Xadim yonent bi sallallahu daa wax ne wa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yaqulu baxda kulli salaat allahuma ij'al xayra ayaami yowma alxaak yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa na wax ginnaaw julli gu ne suñ borom yàlla nag ma defal bis bi gën ci samay bis mooy bis bi may dajeeg yow ca loolu mooy bisu màggalu daaru xudus gi nga xam ne ci la sëñ bi dellu ci boromam dajeeg boromam Seex Abdu Mbàkke génn fan wax ne falaa yëg falaa yasukku man lam yahum alasat basaruhu wa basiratuhu an asal yawmi ahaqu bi tahsim min gayrihi képp koo xam ne amul benn sikk sàkk ci képp koo xam ne kañaan muurul bëtu bëtu xolam gisub xolam magal bis bi mo gëna yallo magal banen bis budul mom fala yasukk man lam yaum al hasad basaruhu wa basiratuhu anna xaasal yawm ahq bi tahsin min ghayrihi neena wa xasada sayxul xalifa semus fa da ci ni tam anhu bi bijtimaaxi fi aasal yawm wa huwa tilawatu kitaabullahi al aziz wa tasadduq ala fuqara min ghayr israf semus fa da ci jubloon ci magal bi lim ci jublo won rek moy ci anam gi ko wara nyu moy ñu magal ko ci jang alquran niñ ko defé jital lay tayé ko jàng alxuraan kitaabul asis ak saraxé ak dimbalé ñi nga xamné ñoy way ñak yi ci baña a ëppal ci dara baña yaq ndax yaq mom suñu borom moko bañ inna allaha la yuhibbul musrifin xam ngeen ni itam lepp dafa dellu ci sunna rek saraxé lu am cëslaay ci sunna la euh, نيكي ki noonu jàng alxuraan lu am cëslaay ci sunna la waaye nag lépp luñ ci def itam Cheikh Moustapha nee na woon Cheikh Moustapha nee na woon nañ delloo yool bi Cheikhul Khadim yool bi nañ ko nañ ko àddiyaal Cheikhul Khadim wa ahda asawab lahu wa siyaaratul ixwaan baxduhum bili baad ak mbokk yi siyaarante loolu it na ci li tax ñu bëgg a bis bi li sabab màggal bi ak njariñam moy mbokk yi daje talibé yi séaranté siyaarante nemmikonte loolu itam da bokkon ci sabab bi ak li taxaw ñu bëgg ko lool wa taxlimi ulamaanuhum wa jahaluhum ma yahtajuna ilayhi min amri dinihim wa dunyahum ak xamal itam nak ñi nga xamné ñoy ñooy borom xam-xam ak ñi nga xamné dañu réré sax fatali borom xam-xam ak ñi réré mbolem loo xam digle won nako ñu màggale ko bis bi mbolem lo xam dañ ko wéere woon ci mbirum diine ñu màggale ñu ñu ñu fàttaleen ko ak suñ mbirum àdduna itam wa kayfiyatu muamalatu hukkaamul bilaad naka lañuy ñuy jëflante wàllu ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu àdduna loolu itam bokk na ci li Cheikh Moustapha digle woon nañ ko fàttalante ca jaare ko Cheikh Ahmadou ci lame ñu Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma wa ta'dibi maahum ila gayri salika min al umuri allati kullu fardin minha yalsumu al ijtimaa la ak fàttalante ci mboolem mbir moo xam ne rek suñu mbiri àdduna la loo xam ne daf day war ci société bi ñu man koo fàttalante ak di ko yittewoo ci war koo xam Cheikh Moussa nee woon nañ ko ciy fàttalante ci anam gi ñu ko war a màggale lépp ànd ak teggin ba ci wàllum ñi nga xam ne ñoom lañ seqal àdduna ak mboolem jafe-jafe yoo xam ne dafa am rek ñu waxtaane ko ca lépp ñu def ko ci ak teggin ak i dal ak akuk dal loolu bokk na ci نسكو ورا مغالي تي ديغلو سامس فور متجي ديسغروم نك ني ايها المريدون عندما امركم به السيد الخليفه واكدت واكدت عليكم فان على الخلف فان على الخلف ان يصوم اثار الصلف فتكون ممن خالف فيهم فسوى جل من المؤمنين رجال صدقوا ما هذا عليه fa minhum man fa minhum man xadi naabu wa minhum man may yantasiru wa ma baddalu tabdila noonu la tëjee discours bi ne yéen murid yi daal na ngeen xam ne lii mooy ndigalul xalifa sëñ bi nga xam ne moo njëkk a seexul xadim ma feddali ko ci yéen ca mooy li nga xam ne xalifa bu ne war waru na ko ñoŋale la mu wutu ci nii ko alxuraan waxe ci aaya boobu ma wax léegi rijaalun sadaqu maa haadullah alayhi fa minhum man xade nahbahu wa minhum may yantasiru wa ma badalu tabdila kon leen loolu leen la ci li nga xam ne mooy liñ mën a tënk rek ci lu aju ci màggal bi ak njariñam mu mel ne mbokk yi nag dañoo taamu woon ñu waxtaane lenn ci ak murit muy ak taalibe ak taalibe nag ngir nga waxtaane ko faaw nga wax dara ci tasawuf aslaf ci tasawuf ndax xam ngeen ni tasawuf mooy li nga xam ne li ñuy wax iraada iraada gi nga xam ne moo jur ak murit tasawuf moo ko jur buñ ñëwee ci baatu suufi yu bi nga xam ne mooy tasawuf ahmadul xasaali yi mi nga xam ne mi ngi ñëw ci atum 1123 di mbokkum ahmadul xasaali yi mbokk mbokk la moo xam ne moo imaamu xasaali mi ngeen xam ñoo bokk ndey ak baay saqiix la ci moom mbokkal ma moom mbokkal ndey ak baay moom ahmadu xasaali nee na baatu tasawuf nee na mooy loo xam ne day jur ak sopp soppuk jaamu yàlla maanaam jaam bi mën a am li ñuy wax asaq maanaam bu doon bëggeel bëggeel gi nga xam ne ci xol lañ koy defee nee na tasawuf day def ci xolub jaam bi xolub jaam bi euh, asaax googu nga xam ne mbëggeel lay doon goo xam ne da bëgg jaamu yàlla lool ci sa xol xam nga ki nga xam ne daa am asaax ci ci ci xolam kooku du tàyyeel ci julli du tàyyeel ci koor du tàyyeel ci joxe asaka du tàyyeel ci genn jaamu yàlla loolu la tasawuf di def ci xolub jaam bi loolu la ahmadul xasaali wax am na ñu wax ne itam Euh, baatu tasawuf ni ñu koy firee anna tasawuf itisaafu bi maasani l axlaaq wa sifaatu wa tarkul mazlum minha neñ tasawuf ci boppam mooy euh, melawoo ci rafet rafet jikko yi ak sell ci lépp loo xam ne dañ koo ŋàññi maanaam li xam ne dañ koo ŋàññi daal lépp loo xam ne dañ koo ŋàññi luñ ŋàññi nag xam ne mooy bàkkaar rek lépp loo xam ne suñ borom da koo bañ rek nga set ci wicc wicc wicc lépp loo xam ne day jikko ju rafet loo xam ne lu sell la dañ koy tagge ab jaam nga melowoo ko loolu mooy tasawuf am na ñu wax loolu am na ñu wax ne itam tasawuf ci boppam mooy waa ahlu sufa ñi nga xam ne saxaaba yi ñoom lañu toppoon mooy ahlu sufa wax nañ ne am mbooloo ma moo xam ne am mbooloo la moo xam ne ay miskin lañu woon amuñu woon dara ay foqaraaw lañu woon dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo saxoon ci masjidu nabawiya asarif dañ leen daa jox yonent bi saasam da leen daa jox ay sarax ak asaka ak yu deme noonu ñu daa sol ay yére yu woyof ñooñu ñooy ahlu suffa foofu la baat tasawuf jóge ñooñ la saxaaba yi toppoon xam ne jaamu yàlla rek lañ féete woon dañoo saxoon ci jàkka ji am nañu wax ne baatu tasawuf itam baatu tasawuf mooy loo xam ne day teewal xolub jaam bi ci boroomam nga xam ne foo toll day sa xol day nekk ci xadaratul ilahiya ba dangay bokk ci ñi nga xam ne sax dañuy njëkkante ci mbooleem topp yàlla yi nga xam ne jaamu yàlla da ngay mel ne koo xam ne da cee fiir doo bàyyee kem dara ak topp yàlla moom da ngay jàpp ne sax yow rek yaa ko war a def am na ñu wax ne baatub tasawuf loolu lay firi am na ñu wax ne itam euh, aw nit lañu woo xam ne daal dañoo jeexati dañoo jeexati la woon ci di sol yére yu ñagas ay yére yu ñagas lañ daa sol abul fatu albasti yi loolu la wax am na benn saar bu wax ne tanaasa annaas fi suufi yi waxtalifu waxtalafu wa zannahu lbaadu mustaqan min assuufi walastu amnau haza al ismu gayra fatan safa fa suufiya hatta summiya suufiya am na waroom xam-xam bu wax ne nit ñi dañuy xëccoo ci ak di werante ci baatu suuf yi ba wuute ci ba lenn ci borom nit ñi sax dañoo njortu ne baat bi ñu ngi xaroo ci suuf suuf mooy lin ñu koy olof di ko wax ngëndal muy coton neeñ baat bi ci loolu la jóge am na ñu wax loolu waaye buñ ñëwee ci ni ko ñenn déggee ci istilaax bi ni ñu koy jëfandikoo rek ni ñu jëfandikoo baatu tasawuf am na ñu wax ne maanaam yasiru ila janib rais fi tasawuf Zakaria di kilifa ci ahlu tasawuf ci kilifa yi daa wax ne tasawuf moom xam-xam la boo xam ne taxrifu bihi ahwaalu taskiyatu nufus xam-xam la boo xam ne dañ ci xamee mbiri ni ñuy sellale ab bakkan ni ñuy sellale bakkan ba nga xam ne danga mën a jaamu yàlla ak sellal sa jikko ak mën a dundal mën a dundal sa euh, biir ak sa biti ci lu lay mën a may ak texe ëllëg am na ñoo xam ne déggin woowu lañ ci am ci niñ koy jëfandikoo nee bu dee ci pratique bi nee na mooy xam-xam boo xam ne danga koy xam ci mbirum noo mën a sell sa bakkan ak noo mën a sell sa jikko ak mën a dundal sa biir ak sa bitti ci loo xam dalay may may zaadatu abadiya ci texe ëllëg texe goo xam ne texe gu dappetu lay doon lu sax lay doon waye buñ ñëwé ci imam Junaydi nga xamné kilifa la ci tariqa sufi dafa wax ni at tasawuf isti'mal kull khuluqin sana wa tarku kull kullu xuluqin danan imam Junaydi da wax ni tasawuf mom moy dal jëfëndiko bépp jikko bo xamné jikko buñ tàgg la waaye bàyyi bépp jikko bo xamné jikko bu sufi la mom tënk bu leer la ci indi bo xamné tënk na tasawuf mooy jëfandikoo bépp jule bépp jikko boo xam ne jikko boo xam ne dañ koo tagg la waaye nga bàyyi bépp jikko boo xam ne jikko boo boo xam ne dañ koo dañ koo dañ koo suufeel jikko buñ ŋàññi la abul hasani saasili yu dafa wax ne tasawuf daal mooy tàggat bakkan bi xeex ak bakkan bi ci jaamu yàlla ak di ko delloo ci àtte yi suñ borom yi ahkaamu rububiya mooy tasawuf ibnu ajib itam dafa wax ne tasawuf daal xam-xam la boo xam ne da ngay xam naka ngay doone ab suluk ku sóobu koo xam ne ci eh, pay suñ borom bi ci pay yàlla yi da ngay xam nanga nga fay sóoboo ba foo toll rek sa biir mboolem loo xam ne ay caay-caay la ay caay la da koy danga koy woteel danga koy woteel ci xeeti ay ngëneel mboolem loo xam ne ay caay-caay la ay bàkkaar da koy wooteel ci xeeti ngëneel awaluhu ilmun wa waxatuhu amalun wa axiruhu mawaaqib boo ko defee ne lim lay jural kii dund tasawuf li koy jural nee na njëlbeen gi xam-xam lay doon ni mu koy ni muy tënkoo mooy njëlbeen xam-xam lay doon digg bi doon ak jëfe waaye mujj gi ay may lay doon tasawuf noonu la boo ci soobu faaw nga xam ko waaye euh, boo boo ko boo ko xamee itam boo ko xamee itam boo sooboo nag da ngay pratique da ngay jëfé waaye muju gi lepp ay may lay doon da ngay muju doon buur bok ci buuri diiné yi tasawuf boko dundé ba egg ca way ba da ngay bok ci buuri diiné yi da ngay bok ci ñi def di dindi lool lay jural ab jàmm niko yeen sasam niko alcorane digal yeen tabi khali salatu wasalaam niko wastaqim kama umirta wa man taaba maak na nga juk ni la ko suñu borom digalé ak mbolam ñi la wasa wasada zayquna yaddaal isaami ak samay doom lépp dama koo jote liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yéeme bëggoon na ko bëgg bu yéeme ba egg ci ne sama lex yi nga xam ne moom bokk na fi gën a tedd ci sama jëmm bëgg Moustapha sallallahu alayhi laa koy laa koy fegale bu naroon a jaar ci ak dëkk wala dara lu koy lor wax na ci fotoxul mu fi am daaxi mu kuréel xaddi wiqaayatun li rijlin mujtaba min sawkatin wa ma yudaha aqraba nee na man daal bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na tegg euh, naa ci foo xam ne sama lex bii bu naroon a jaar ci ak dikk ma lelal ma lal ma jàpp jël sama lex lalal ko ko mu jaar ci ca man ma tëdd ci dégg ak wala jiit wala lépp luy lore kon murit bi bokk na ci li dëggal ak muritam mooy bëgg sëriñam bokk na ci li dëggal muritu taalibe bi bëgg sëriñam bëggee boo xam ne ci bu ko gisee ci buy wax ci ay kàddoom dana egg ci di bànneexu ci ay kàddoom ba mel ne ni muy bànneexoo bu doon jaxasoo soxnaam loolu mooy wax naa Ali yoo xam ne moo ko wax fii mahabbati seyxi ila abdi talassus bi kalaami sayxihi lahu kama yatallazuzu bil jimaa nee na day bànneexu ci ay waxam ba mel ne euh, bu doon jaxasoog daana wax ne Sëriñ Bàmba ci am nopp dégg ngeen doon jalaatee fa man lam yaxmal ila xaasial fa ma axta min al mahabba nee na képp koo xam ne defoo lii ma wax nag xamal ne sab sëriñ joxoo ko ak xam ci cofeel cofeel nga war ci sab sëriñ nee na boo deful li ma wax rek nee na xamal ne eggoo ci jox ko ak xam moo tax Cheikh Mouhamadou Fadal ibnu Cheikhul Khadim daa wax ne ci jaayante gi mu jaayante Cheikhul Khadim ak cofeel gi mu ko bëgg yaa ayyuha Cheikhul nafisul murtaja yaa fatihan ma qablu kaana murtaja bi'tu bunuwati bil irada مركز كي أنزا بقاك عادة من بعد ما اختريتها أمها مني أهديتها لكم بخير مني فلتقبلوها يا ملا زكرما لا زلتم بين البرايا علما بجاه معدومكم المفضل خير الأوائل معا والأول صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما سيقوم محمد دعوة yow si yow sëriñ bi nga xam ne yaa gànjaw di ki nga xam ne yow lañ yaakaar yow mi nga xam ne yow lañ yaakaar ci mbooleem lañ tëj yow xam ne yow lañ yaakaar ci ëllëg nee na dama jaar jaay sama njureel jënde ko ak taalibe bi yoqutu wati bal iraade ngir lan ngir ma mën a am cër ab cër boo xam ne bu xotti baax lay doon bi xaar coono te xam ngeen ne cër boobu suñ borom jox na ko ko. nee na ginnaaw bi ma ko jaayee nag ginnaaw bi ma ko jaayee man see see see Momadou Fadal nee na dama koo def addiya dama koo def addiya ca du ci ñax mukk nag jox boo xam ne desu du ma ci dara nee na ca loolu maa ngi ñaan suñu borom nangul ma ko sëriñ bi nangul ma ko kon kooku ku amoon texeel du tar ci sëriñ bi la ci mooy mooy waajuram Seex Mamadu Fall daana wax ne itam ba tey ci cofeel gi mu sopp sëriñ bi yaaraa iman misla sayqi mahlan falasta taraahu tabarakallahu min fil anaami xawsan jalaahu xubbi lahu dahra bi ayn min xubbi siwaahu nee na yow mi nga xam ne da ngay jóg di wër ku mel ne sama sëriñ bii di Seexul Xadim nee na defal ndànk teeyal ca dal ca doo ko gis ca xam ne doo ko gis mukk nee na daal ku mel ne Seexul Xadim doo ko gis mukk ci teunk rek loolu la wax ndax cofeel gi mako def gi mako gi mako sopp nee na cofeel la boo xam ne mënu ma koo mom mo bi la lahu dehra bi ayni an rabbi siwaahu nee na na samay bët ba ma sopp lenn lu mom man man man sey Mahamadou Fadal li ma soppe Serigne Touba dafa muur samay bët ba ma sopp lenn lu mom sey abdul Ahad radiyallahu taala anhu ci dëggal muritam wax na ne uxtiituka al yawma bil inqitaa'i kulliyati yaa xaadiman mutaa'i nee na man de jox naa la tey jii yow Seexul Xadim jox naa la sama lépp ci nun ma koy dagg sama lépp yow mi nga xam ne yaay liggéeyal kañu topp kon mel na ne waxtu yi dafa xaw a xocc loolu lañ ci xam naa bëggoon nañu gën a yaatu sa waaye xataay wax bi ak toogaay kilifa yi ñu ngi koy jégg bu baax a baax ndax xam nañ ni kàddu yi lu la ndax yëkkati kilifa ndigal rek du lu ñu ngi koy jégg lu baax a baax a baax xam nañ ne wax ji itam gudd na ca xam-xam bi bëriwul fasaaxa bi nit des na ñu ngi koy jégg lu baax a baax a baax lu ci euh, jub rek suñ borom la nit gàtt ci ñun la ak ñàkk mën a leeral wasalaamaaleykum wa rahmatullah थोड़ा सा हया ना taala wa barakatuh mbokk yi nga xam ne ñu bokk teew fii ci barab bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare te di leen baawaaq te di leen balaax di ñaan yàlla boo demu jéggal mel ne dañuy sunu mag di sunu wëlbur sunu kilifa feggoo ko ak sëriñ Mahmoud Lamine Baara Sarr mii moom sëriñ maam Cheikh Ibrahima Sarr xalifab sëriñ Fadou Sarr waaye xalifab Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ de Sarr nga koy siyaare bu baax a baax sëriñ maam Cheikh sunu maga sunu sëriña sunu baaya sunu royuwaaya di ñaan sun borom ni aji taw xalif yalla ji yàlla ko dolli te dolli ko katan ak wir baye boppam xalam di siare bu baax sunu mag du baax ji ci biir di serigne Abdou Samad sar di rakkam di ñaanal itam mbooleem njabootu Cheikh Mamadou Fadilou sar gi nga xamne ñepp ay way jitu lañu yalla na daje yalla yermande ci ñoom ak mu jéggal yang dek ke sini nam si akhir raya masa tapi sebagai Allah saat ke sini mai ke sini darah jadi gendiok kita ke sini dua di si hari kubah kita boleh menjabotok si akhir berasa gap kian yang kiri cerdas dan isu ini kiri ke aku boleh menyuyif nyep dan ayu cikir kita lihat di lem mumelne Bidmi cant la goo xam ne ci bisub sëriñ bii muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha te am ñu ci doon def léegi ay muqaddima waaye ganeen cant la goo xam ne itam ci bokk gi muy bokk kër Cheikh Ibrahima Sall ndax suma juumut jot naa ne kenn boo mbooleem juróomi doomi kër Cheikh Ibrahima Sall ñëpp ku fi yeewoo kenn ku ci nekk am nañu fa jóge ñëw teewu si ba ci pàkk bi ngir nu ànd bis bii nga xam ne sunu bisa ci kër Cheikh Mamadou Moustapha waaye ku ñu fa ubbil bunt bi nag di Cheikh Mamadou Fadilou Sarr yal na yàlla dolli na koo fayal bis bi bisu sant la nan ko xam bu baax ne bisub sant màggalu 18 safar bi ndax bu dee ci taarix ki liñ ciy gëstu dafay wax ne Cheikh Mamadou Moustapha bis bii am na ñu wax ne fanaan si gi sëriñ bi fanaan si Touba ci guddi bu jëkk ga ci ndigal loolu yi nga xam ne sëriñ bi santoon na bu tam réussir ko mooy sababu bés bi waaye du bisub demuk bi ndax bisub demuk sëriñ bi ak bisub dencub sëriñ duñu bokk du benn bis loolu lu ma xam la waaye it yooyu ginnaaw moom ñi ci war a wax wax nañ ci ba noppi bu dee ci wàllu taalibe gi sëriñ Fallou jërëjëf ñoo ngi la ciy sant bu baax taxawaay bi ci yitte ji ndax bi xam lu jotee xam lu ji waaye yàqul sa pas-pas ci taalibe yaa ngi ci da nga war a ne yaa ngi boole jaamu yàlla yaa ngi ko booleeg liggéey fa isaa faraxta fansab wa ilaa rabbika fanxab waaye yooyu yëpp nga lay taay ko ci nag xam ne dareeti taalibe nga rek ngay dund di ko dox yal na yàlla dëgëral sa taxawaay waaye itam dongo yi nga xam ne danoo bokk kër gi ñu dongay pas-pas ñu laxasaayu sëriñ bi njaay wax nga ko léegi sëñ maam Cheikh Ndiaye say maam say baaye woon ba ci say mag ba ñu wuutu tey ñu jiital la ci liggéey bi nga ànd ak ñoom dum njàmbaatu yaafus ndimbalul sëriñ bi la sëriñ bi nga xam ne moo leen dimbale ci liggéey bii nag yàlla na leen gàttandul seen bopp samp leen te dig leen te dëgëral leen yàlla bu ngeen bew yalla bu ngeen gis seenu liggéey yalla na ngeen fatte seen jëf ndax jëf kat bokku na te la koy samp te dëgëral ko moy jëf ko te sëriñ bi rek ka tax ka boo ko kanen ku dul sëriñ bi bu ko ko wan bu ko wan sax sëriñ bi ndax jaamu sëriñ Tuubaa daf daan wax ni man de ma ci say bokk ak taalibe te damaa wu sax man dama sen sañ bamba ak boppam bàyyee kook saa bopp saku ci moom àjjana sàkkuñu ma ci mom lanen dudul aljana àjjana lu mu dogal ci man neex na lolu moy bu ak ki nga andal kon nu gëna a takkuwaat ci taalibe rek gëna a takkuwaat ci ñak kibriya ak rëy gëna gëna lewet gën a mën a jaxasoog sunu bokk ndax lan nu yàlla sàmm ci bokk ku ne xam na ko di war maalante ci lu baax ci yiw moytu lorante ci sunuy ci sunuy kàttan moytu lorante ci sunuy làmmiñ wala yoon sibi la moytu moytu moytu li ñuy dund ñu koy dëgg rek tey yitte moo yett bunt ku ku bayiwu dara doo def dara saa boo bàyyee def dara itam boo ko deful say bokk di am koy def ci bokki jàpp te kenn gënu muy bokk nag kon man sàmm sunu bokk te sàmm sunu bokk mooy sàmm sunu taalibe damay wax léegi mel na mbokk fii ci baas bi ma ne ko tànn ba tànn jeex sëñ tubaa tànn la daf koo gën te sëñ tubaa moonu tànnal ak taalibe ci kër Cheikh Ibra Sarr ginnaaw moonu tànnal nag nan am yitte ci lim nu tànnal te bañ koo kooj bañ koo boole dara ku tànnal sa bop nak la nga tan wiru ndax man nga mer man nga xol la ne lu jël lu de neexut nangam nangam xey xey genn ci moy nga gis lele nga tag nit bam yag nga mujj xarab ko nit ñi buñ la dé déglu sax dañ nan ki du nit ndax fété wo fenn bu fekkee ko gërëm tay bu suba nga xarab ko tay ji ka nga taxaw wax ci mom la rafet ca jotaay ba nga taxaw wax ak bu liggé nga waxaat ci moom ab safan nit ñi ci la at addun la fenn te nit man ta ñak sa fenn fi ñu war a sës mooy fan mooy Cheikh Ibra Sarr ñii nga xam ne moo nu boole ci sëriñ bi waaye bi nu boole sëriñ bi kenn ku nekk bàyyi woon na la ci benn roq dina ñu la fa yarlu di dafa jàngal ak teeli bi bëgg wëlbati ko at dellu si waat nun ñii fi nekk noo war a doon sunuy bàyyi noo war a doon sunuy sëriñ noo war a doon sunuy wasiila nañ leen di déglu tey jëf ci ñoom tey déglu ndigal ndigal nag ki nangoo tax ndigal a jib ki nangu taxul nuy dégle sëriñ Saaliw udah wax ne am lu gën lepp salah ci sédd ci ñepp ba ñak ko wolbi ko diko ko yalwaanaan ña ko séddoon sagante mënu ko wess ta Cheikh Ibra mom mok juru Cheikh adamay ku ñew ci serigne Bamba fi nga fekk ta mom day mo waxon juroomi juroomi doomi Cheikh Ibra yi yii de donte am ko ko ñak muy non te ñak nuko wax ju la ñepp ko xam ndax nun day noo ko fekkoon fa àjjana yàlla sóori lan abadan di ko teral mu ñëw ànd ak ñun ci li adduna gii li ci liggéey gi ba war nañu yoon te kenn ku ne gis na doomi Serigne Touba yi liggéey bu ñu mas a tàmbali bu mu mën di doon wala ci kër ku sant Sarr lañ fay njëkk a yebal def na ko ci ba Bassirou Sarr ba tàyyi def na ko ci Serigne Touba Sarr ba tàyyi nun ñi jaar na ko ci li ni gone gone ba ci ay Mourtala Sarr Serigne Bassirou Sarr ak ñeneen yooyu yëpp luñ ci jublu mooy barkeeloo rek lu Cheikh Ibra Sarr njëkk gi njëkkoon Serigne Touba muy njëg laayam moo tax sëriñ Touba wax na Cheikh Ibra Sarr de ñàkkunu amoon na ko ko ñàkk muy noonu te ñàkkunu ko yéen juróom ñii nag muy sëñ Mut Sarr di bàyyi Serigne di Serigne Fallou Sarr di Serigne Mor Diarra di Serigne Mbacke mu leen yéen de maay seen ndey maay seen baay maay seen lépp moo tax Serigne Saliou daan wax ne. lii fi lii ngeen fi indi de luñ ci sañ sañ ngeen koy porté bu ngeen ko jëfandikoo ne dara du leen ci fekk kon nan xam suñu bopp te ñoom dañ leen a mbaa yàlla nag duñ mbaa yàlla lu ci jug dañ koo mbaa yàlla wàlle bu nuy mer di mere nit ñi ndax mën nañ cee loro ki lay saaga ak ki lay gërëm ak ki lay gërëm ak ki lay tàgg na ko yemale fi sa xol ci ñoom 1920 safula 1985 te sëriñ Saali wooy wax ma dégg sama nopp kenn nett liw mu ne ab donga day fi sëriñ bi buñ nàkkee nopp ma maanaam pes ko mu geesu ak mer donte fayu daa geesu ak mer nee na jamono yooyu rek fayu na te ku fayu boobu jamono yooyu boo fayu bokk ci sëñ léegi nag nit day wax di dara ñu ne daa ah, sëñ baarakat dégg nañ moo ko wax yow ci sooy bi ne ko seigne bara de nee la nangam ak nangam seigne bara vérifié wala seigne bara waaw dana xam ne dàquma ko xam ci ñaaw téef mu waxal ko ko wala mu keegeel ko ko sax wali yon sibillah nam nan li nu am sàmm ko ci ngor sàmm ko ci taalibe sàmm ko ci bok sàmm ko ci bok ku mu tu defar sa bok mu mënoo yak kenn tay ku bëgg yëkëti nit ñi ku mu mën di doon yalla yëkëti ku bëgg soofel nit ñi yalla soofel te boroom nag ku xereñ la ci pay innahu hakiimun aliim ku xereñ laa ci pay waaye ko xam duñ ma lebal laa bagage yi Serigne Touba yii du lu nuy fawee mu dugg ci suñu loxo ay taalibe boo ko laajee mu jox la boo ko laajoon mu jox la boo ko santee mu defal la boo ko santul mu defal la te dara joxuñu ko ñu ko ñu ko jox juddu Serigne Touba ak sunu maam yi liggéey nag suñuy baay nuy foofu tandi ko soli dara di foofu tandi ku ne ku ci ko xiiru te liggéey ba duñ ci dara nañ sàmmoonte te te te jàppante te bëggante ngir yàlla man xawma kii doom la xawma kii jarbaat la xawma kii mag la xawma kii bàyyi la li ma xam mooy kii dara Cheikh Ibra Sarr la te damaa gëm na dereti Cheikh Ibra Sarr dereti Sëñ Bamba la war maa rek añ ci war bagage sëriñ bi nag buñ jàppee ne mbub mu rafet oto bu baax kër gu baax soxna nangam nangam sëñ bii lii la ñuy sant Sëriñ Tuubaa yàq nañ ko bu yëgee na suñ xol yi wulli nañ ko ba kenn ku ci nekk sama ron gënal la la sa bopp loolu la sëñ bi doon liggéey fi noonu buñ ko defee nag alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf sëriñ Tuubaa te xam ne yàq weesu na ci noonu yàq weesu na ci nit ki da ngaa war a góor-góorlu bu yàq bul yàq boo ko defee rek daal di ko yor jikkoy makkaar yi mu dox leer te loolu la sëriñ fi noonu sëriñ Fallu mii se ñëw nga ci léegi jërëjëf sa li ab soññee la ci yéen taalibe yi jërëjëf seen liggéey bii am na solo lool bu ngeen ko defoon ba noppi sëriñ bi taal ko wala mu xëpp ci suuf na doon na doon na loolu doon seen soññee na ngeen jàpp ne loolu mooy njariñ bi yéen waaye liggéey ba noppi di ko di xool fii ko sëriñ bi war a dugal nu ko war a def wala ñu sibila bokk maam Cheikh Anta ma sëñ Modou Mamoun indi na fii addiye teg muy am million te booba am na kilifa bu ko jiitu indi fa ñetti millions ñuy yéem ñetti millions yi Serigne Fallou daan ne man million bii moo ma yéem moom laa naw génne almet indi génn ab junni ne ko xam lu almet gii di wax ma jox la sama junni bi kenn xamu ko mu ne kon man mi ko xam maa sa ab junni addee jii borom daf maa wax ne su ma neexee lakk su ma neexee def nu mu ma neex ba ma ko joxee la ci yoonam bañ nan ba la nan ci noppee nekk fii lañ war a nekk buñ demee ba ab sëriñ wala ab taalibe di jéem a lijjanti naan taalibe bi bii kër sëriñ Fallu Saar la kër Bay Sëñ Saar la kër sëñ Mut Saar la kër sëñ Mbàkke Saar la kër kër la na taalibe boobu seetaan boppam wala sëriñ bi te sëriñ Saaliw fa laay tëje daana wax na man de bu ma déggee nit naan diw sama taalibe la damay rëdd wallaahi si laa ilaaha mu ne su ma déggee diw naan sama taalibe la damay rëdd damay tiit suma nekké diw na ni ki sama serigne la damay tiit ndax dama xamut bo wa kino andal lu muy doon fi non bo boba muy sëriñ Tuubaa ma téno ci jappi serigne bu muy serigne bi tañ wuti nak ay jëwriñ dal na jëwriñ ci tol nak dama la doon doon wala mo sos la sosu waye ab doñ nak day yàgg bu mbay ndax bo dooñee borom la xamu gal bu yeggalee sañ na tok ci kër ga ba ñepp jéxal ñu doñat ñun ka di xam nañ lool loolu da mm-hmm. yàggalub liggéey néna waye bu dé aw sas nak sa loxo bu gaaw wala jant bu sot na nga xam ne loolee mooy la la fa bàyyi jëwriñ joojee buy sas juróom fukki nit na xam ne juróom fukki sas ak benn la war a dal mooy mujj daal aw sasam te waca wañ ci gën a ragal moom lañ ko fay bàyyi ngal la waaye bu njëkku ta jeexale na ci gën a rafetu mbay loolooy bagage bi loolee fa lañ war a ne alxaq min rabbikum fa man shaa fal yawmin wa man shaa fal yakfur assalaamu aleykum wa